nee maa ngi nuyu ñëpp nee na moo ngi nuyu ministre madame Badiane sëriñ bi nee na mi ngi rafetlu sa teewaay bu baax nee na mi ngi nuyu soxna Seynab ak i bokkam yépp nee na nuyu Pape Aline mii nga xam ni jotaay bii ñu nekk moo fi teewal famille Ndiéguène yëpp tooga fi jotaayu alxalif Serigne tooga fi jotaayu imam As Serigne bi na mi ngi lay nuyu di la yóbbante nuyoo na di la yóbbante nuyoo bu tedd ci sunu wayjur ak Serigne aas nee na di ko sant bu baax ci cofeel gi nga xam ne yàlla def na ko sama diggante ak moom nee suñu jëmm ju xeew ji fàttali nañ ko léegi nee na ju baax ji kër ba fi ñëwee nee lépp loo xamante ne teraanga la rek nee na sëñ def na ko ci moom sëñ Munir nee na ba yëkkati mante boobee mu ko jox sëriñ bi mu di ko béggee lool jàppe ko nag ak yëkkati ko faw di ko ca sant lool te di ko gërëm nee lépp nag mi ngi tàmbalee ci sama digg ak moom nee bi ma ko xamee ñu jaxasoo Seynab di doon nit ku baax koo xam ni nee na ni ay way juróom mel ay maama mel ni noonu rek la mel nee na fi mu jànge ci tubaab yi ak fi mu liggéeye ci tubaab yi ak fi mu nekk ci état bi loolu lépp bàyyiwu ko xel moom jukkee mag ña rek doon sëriñ bi nee na loolu ñu koy rafetlu nag bu baax a baax nee na teraanga jooju muy wax ci imam As di ko wax ci sëriñ mu néer ci sa jëmm ji la na xam naa la nga wax lu baax ci say waajur ya nee na looloo waral ko fonk ñoo fonk ko nee na teraanga ci yow la tàmbalee ba yegg ca ñoom kon ñu ngi leen di boole cant yéen ñëpp di leen gërëm bu baax. nee na ñoo ngi doon dollee ak suñu bokk nee na bokk gi li ma mujjee wax rek ci sëriñ bi ak maamam ci sëriñ Touba ak maamam nee na bu loolu loolu dong na sëkk. waaye ñun ñaar nag dañoo bokkaat ca pir. nee na noonu yi la ko kaw la leerale léegi. te nee na ni mu ko waxee xamee nañ ko noonu kon ñoo ngi yeesalaat suñu kële rek bopp nee na Pape Alé ñu ngi lay yóbbante ci Serigne Maliou ak ndénkaan koo xam ni moo ko jur moo ko yar waaye li ñu xam ci moom ak li ñu yéene ci moom tax na danañ ko ko dénkaat bu baax na ko dollee ñaanal dolli ko yiir ba fu mu war a yegg rek mu yegg nee na ministre maa ngi lay nuyuwaat bu baax te di la yóbbante itam am nuyoo du président de la république jaar ci mboolem gouvernement bi ay nuyoo ak i cant waaye nag di la yóbbante ndénkaan ci président de la république soxna Seyda bu jegeen mii nee na président nañ ko gën a teel bu baax nañu ko gën a dimbali bu baax xam naa ni day moom du ko war du ko yàq kon nag noonu ko koy delloo dénk bu baax ci sa tur ci sa làmmiñ di la ko dénkaan yow ci sa bopp wala bopp ñu fedd li dénkaan la nga xam ne moom la la ko way juróom dénkoon noo ngi koy fedd la bu baax ko fedd bi ci turu sëriñ ma niyu sax ci turu jabat bi yëpp na ko bu baax dana ajaa seen bu da nga am teraanga lool boo fi ñëwee da ma ci yegg ndax léeg-léeg ndaw ku ndaa yi dañ koy yóbbu moo xam ne dama bëgg mu yegg fa waaye li ci ñoo koy sant te ko gërëm nee ni mu téye sama rak Cheikh Mamadou Fadal téye ko baax ànd ak moom suñu ko ci dara loolu lu neex la te neex na it neex na it suñu kilifa yi Cheikh Mamadou Mountakha ma fekk fii itam sama rak sama xarit Serigne Moustapha nga xam ni lépp lu ma nekk sëriñ baa ngi mën naa taxawe ci man loxoom ndeyjoor mën naa taxawe ci man loxoom càmmiñ seet na ma fépp maa ngi koy dégg ñëpp te ko présenté sama rakka sama xarita sama wëllëre sëriñ Xaadim dama ko présenté sëy xam na ko maa ngi ànd ak sëriñ Bassirou Diouf mais ak sama njabootu bopp di leen nuyoo leen ñëpp di nuyu ñëpp bés bi nga xam ne bésub rasulullahi sallallahu alayhi la tax ñu daje fi yàlla noonu yàlla may nga defe ko ni mu ko bëgg tàmbali ko tey ba mu jàll ba weesu ak jàmm yàlla may nu li lu ciy séenu ci ay tiyaaba ak i ndam ak i barke yàlla may na ko ci damay nu itam mu weesu ci jàmm ñu dellu fekkewaat ko ay déwéni déwén te benn bu ñëwee gën faa baax ñoo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey sant suñu bokk yi nga xam ne fu nu toll ñoom ñooy buum gi lëkkale bokk di ko fàttali nit ñi ba kenn du fàtt sa morom ñu ngi leen di gërëm bu baax nee na ñu ngi nuyuwaat ñëpp jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke Allah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 moom taalibe la ñoo ànd tukki waaye ba ci taalibe yi ni ñuy doxalantee léeg-léeg ñu am yéene yoo xam ni seen loxo du ca àgg kon ñun mën nañ ko seede yal na yàlla gën ko fi yàggal yàlla gën ko fi bàyyi moom mbokkam nii sëñ Xaadim moom la àndaloon tabaarakallaahu alhamdulillahi wal mursalin sayyidina wa mawlana Muhammadin al-Makin wa ala alihi wa sahbihi wa ridwani wa tamkin yaatal bi ak tafadal bi waaye loolu mooy sa jikko di la ñaanal yàlla doon la wér bu baax doon la fa yàggal loolu tam ba yàlla nga xam ne yéene ko ci lislaam yéene ko ci supplement bi daal dafa la coow fi kawe ci bëgg rek yàlla defal la ko noo ngi am mbégte nag si waat fii ci jotaay bi. bëri lii yow sa ku la gis jëm la kanam dafa leer sa bopp dafa rafet koo waxal rek mu xam ne yow ñu sopp la lool kon bu ma la nekkut nekk ci ab tukki dama lay laaj say yëngu ma waxee ma jot eh, daf koy yaatal lool ba xam ne ak la fu nekk tubaab googee dara mu màgg ni fa toog fa dafa ay der la yoo xam ne lu néew a néew a néew. wax dëgg jigéen nga ñaanal bu baax di la xamal ne itam sëñ Fallou suñu rakk la ñu ngi fii ci kër gi eh, ku ñu am ci moom yaakaar nañu ku ku ñu ku ñu yaakaar la ku ñu wóorul la am nañ ci jigéen bu sa ñi nga xam ne ñoom laa àndal sëñ bi bi ñu ko waxee léegi sëñ Xaadim sëñ Khalifa wax na ko léegi eh, njaboot bi sant nañ ci yàlla bu baax. bi ñu gisee suñu année kontaan nañu bi ñu fekk ñu ñu fekk suñu baay aas kontaan nañu waaye bi ñu àndee ak seen xalifa nag dem ci bitim réew moom ak seen dëgg dëgg gën ñu kontaan gën ñu jàppal kër gi bu baax ndax mu nekk kon moom bi ñu àndee li mu wax ci lu baax ne maa ko ko terale lépp man gis mooy yaram ak tegginam ak dalam ak teeyam te noon naa kër ci kër ci lool waaye yàlla def na yaatu yaatu bu mu lay yaatal ak xorom yàlla ko defal ñu koy nuyu di ko seexal sant bu baax incha allah yow dañ bëggoon a jullil si sax tey àjjuma da ngeen yéene jéegi bi yaakaar dañu barab bu ñu boole suñu bopp la ndax da ngeen nu cee boole ubbilu seen lépp tàmbalee ko ci sëriñ bu baax wax naa ko léegi dama baax seen li ci mën a gàtt daal gudd gudd suñu xol set na suñu xel dal na ci béréb bi ñoo ngi ziar bu baax leen xamal ne yéen ñi suñu bi seen bëccëg seen doomu baay moom itam xam naa ne cofeel bu nit di am ci nit am na ci ci seen diggante moom xam na ñu leen yàlla bu may lu teew ay déwén déwén déwén ci nekk ah de dem ni ma ko waxee mooy dëpp bëgg Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tax nangul na ko dee leen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Thank you. dama ma ñëwee ci néegam bii fi la ñuy toog waxtaan. mu def comme ñu mu bokkal ndey ak ngay sama goro nag ndax lay faatu ñu. di suñu ministre. fonk ñu bu événement jotee nga jox ñu li ñu moom ci yow. jaarale ko ci loxo lay faatu ñu jox ñu. lantinoor la du tey diw. nga fonk ñu lool te la ca dàq mooy ràññee bi ak yëg-yëg sa bopp faal fu ñu la gis da nga ñuy accueillir ñu yóbbu jàmm santeeg ñun waxanteeg ñun te loolu moo dàq lépp loo woote it nag woo ñu te te bu ñu ñëwee nday faatu nga yebal mu woo ñu te bu ñu ñëwee bala ñoo ñibbi mu ni ministre leen jox. xam na ni sama nawle la duma ko waxal lu nekkul. mu ndax dafa jël sama doom. dugal ca këram muy muy suñu ñaari doom di sëy mhm. kon moom jox na ma cër ma jox ko ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangub sang yi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte bu baax a baax a baax di leen ziar yéen waa Thiès Actu euh, sunu teewaay nag ci bis bi euh, muy bisu soxna Seynabou Ndiéguène euh, muy bis boo xam ni maanaam mën na ni daf koy anticiper waaw di ci sargal euh, ki waral guddi ëllëg gi di Seydina Muhammad waaye moom ci ni mu koy defee mooy euh, xool ñi nga xamante ni dañuy yëngu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay mbokkam ci ay am di jàmmam ci ay xaritam euh, woo leen ci bis bi nga xamante ni moo jiitu su ko defee ànd ak ñoom ci mbégte mi waaye nag moom day koo xam ne wax dëgg yàlla dafa am jàpp goo xamante ni daf nu koo jàpp te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax waaye rawatina itam jàmbaaram yi Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul nga xam ni daf nu am foog mu nu teg lool euh, maa ngi koy wax sànq rek ni daanaka mën naa wax loo xamante ni lu ma lu ma marqué la ci moom ndax itam moo daf day wax ni nit ku nekk bësam la am te nit kenn ko xeebal bësam te yàlla def itam bis bi nga xamante ni maa ngi ko doon wootee bu yàggut euh, mu doonoon la 7 juillet bi passé euh, Sorano yàlla dafa def bis bi mën naa ni ma xaw ko koo fàttee wax waaw yéex ko koo wax lool ndax bi ma demee ba di ko wax bu desee daanaka semaine ci lay yem waaye ba ma ko ko waxee daf ne ma yow de wax dëgg yàlla euh, say mbir samay mbir la te insha allah bu ma fi fekkee dinaa fexe ba dinaa ko teewee ba ma koy wax itam euh, kama boo kama kama xam ni moom moo joxaatoon numéro bi euh, maa ngi naan ko ah moom de xam naa ni borom yitte la xam naa nag daf may bañ a neenal moo tax mu waxee ma nii waaye yaakaaruma ni dana ceew ca bis ba waaye dëgg yàlla mu mu mu dikkee ak mban dikk boo xamante ni euh, lu jéggi dayo la ndax euh, fa ma toog ni dem génn lan ni ma kat ah soxna Seynabou moo lay moo lay seet dëgg yàlla mu ñëw ak i xéewalam ak i teraangaam lool macha allah Euh, bettanu bettin woo xamante ni tax na jàpp gu nu amoon ci moom benn ñu fexe am fukk ci moom dëgg yàlla ndax itam nit ku nekk la waykatu arab ba doon wax naan tamasak tamasak in safirta bi zayli xurrin ndax fa innal xurra fi dunia xalil dafa wax ni su fekkee ni da ngay ut koy jàpp nee na xoolal koo xam ne góor la koo xamante ni maanaam waxul am am ak yu ni mel waaye daf ni xoolal koo xamante ni góor la nga am nanteeg moom ndax toll nañ ci jamono joo xamante ni keneen koo jàpp ku dul gor bu lay bàyyi dalay bett moo tax nag moom ci ngor googu la ñu jàppee te itam ñu am fa euh, cofeel goo xamante ni sunu di sunu borom def na ko ci sunu diggante ngir euh, tagg gi nga xamante ni ñu ngi koy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon koo xamante ni ku nuy xelal la nuy jàppale la di ñaan rek sunu borom defal ko tawféex defal ko képp koo xam ni rek teew nga fi bi jaahi euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barkeb xaadima Mustafa jërëjëfati. waaye ku lay woy danaan la layoo bi jeeg la bu doom yi màggee leen xam naa ni sa yaay layoo naag yeeg gi bay na leen liggéey mbay boutique la xam naa ni ku rek la bett laaja sa yaay yaa sant Seydina Mouhamadou Rasulillah المصطفى محمدي سرا وجورا في البرايا سمدي مدلنا الإسلام والكفر ما وبنصيحة لكل سماء يقود بسائر والباطن من أتاه لله في كل سماء يا تنت سيدنا محمد ana rabbana lam yuridi mislan loo fa misloo laa yuridi soxna na bu jigéen yaa tantal borom ba reer oor ba ca Madina kooku ku ko tooñ mu baal la waaye ku ko ñaan mu may la yàlla ko njëkk a way ci alxuraan keneen ku njëkk a way da ngay barkeeloo Abdoulaye baayam ma nga dëkk ndëkk ma ca saam Seydina Muhammadu Rasulullah xam nga waaw waaw mbaa xam ngeen kii may wal ba yàlla bind bépp mindeef malakin ñun waral bu ëllëgee yawmal xiyaam Moustapha taxaw di ñaan boromam ngir ramunu na bee waral bu ëllëgee yawmal qiyaam salli bi salaam alayhi bi rusuli jamiian ya salaam dama jóg di sant kii ma ya salaam waaw te mooy rabbana buur bi tuddu salaam allahu di buur yàlla mi doon salaam ki jox xayru xalqihi salaatu salaam dagaan na salaatu di dagaan salaam mu jox ngeen gi yoon nen alayhi salaam حي الله يا ربي هب لي الصلاة ولم يمن بين جوار سلام ci barkeb sëriñ bi nu may tey salaam waaw waaw daa ñaani ruur daa ma dee salaam ka dem géej ba ñëw naa borom ak salaam na daj xeet wi yépp buur yàlla yaa salaam ku dib muminin muminaati yaa salaam na am jàmm fii am ko fekk yaa salaam ku dib muslimin muslimaat tura doo di xéewal ndax ku ni la fa boo dee braguette boo génnee na say bët xonq. waaye Adja sëy na bu jigéen góor baax na jigéen baax na. Serigne Bamba. xaadim hmm. borom nit ñi. kookoo ne xadamataaxu fawqa kulla raqaba min artahaara xoro kulla man xaba hmm. lawo siyaadatu lawo baraa yowma la lastu wala da safaaha hmm. fallu mooy mbaatum lépp ku ko yeddi muñe ku ko lambu kontaan koñam kubal Serigne Fallou Serigne Fallou rono mata ci nit ni ni def ni nit ni ku ci masa reer mu gindi xamal la yoon wi soxna Seynabo jegen maam aas maam paate dema yoro waaye gaal gaal daaru fàlloo baax te woon loolu ku ko waxul daal da nga dib dof ah, mbaa ki ñaan dugg la mbaa nga ma dal bëgg a dem ndaale mbaa nga lim yëpp mbaa sëriñ fàlloo sëriñ fàlloo ah, Gracias. <laughs>

am na suñu engrais test benn ak suñu tool bi jot nga ko. jëm jëm waaw waaw jëm. waaw waaw man moo ko nee naa maa ngi koy maa ngi maa ngi xam waaw parce que yoonu bokk. yow naa ci sëñ bi moom embouteillage bokk ci lenn lenn ay béykat. kenn ñu teewlu ci bokk. waaw dañoo teewlu ci béy loolu lan la xamee nag. démb tamit noonu la mel ndax tëj ca buntu bi loolu. démb buntu bi tëj ca buntu bi comme. ah yi su jot waaw waaw waaw wax nga dëgg démb dafa dafa guddee ñëw de. waaw dafa guddee ñëw parce que démb dañu gën a ñoom ñuy ñibbi si waaw daje naa ñoom fekk ma dem jaay ñu kala ñaar ñoom moom Serigne Bassirou ak soxna Safi moom Serigne Cheikh Asfal moom Serigne Bassirou ak soxna Asou Gaawaan moom Cheikh Asfal Serigne Cheikh Asfal moom Serigne Bassirou ak soxna Abi Diagne mais nga xamante ni dëkk lim na dox ba bis waa ba boobu léegi ñu ngi nekk mu tëj te yaa ngi moom ngeen bokk ak kër ci kër gi ndax moom dañ ko dénk sëñ Modou Rokhaya moom Serigne Cheikh Asfal ñu dénkal sëñ Fall soxna Kine ak magam yi mu àndal ne ma ci damay fayi bor ndax ma li ma njëkk wax ne ma ci suba bi ñu nekk mu ne ma moo mag fuuf ah nee day jéem li ma njëkk ne ma nee na yaa ko mag fuuf teewul da ngay waxtaan ak moom di ko conseillé di ko digal man nekk te maagul gaalu xulóo na ma ma doon lekk lépp ba mu amul ma mbuus ma yóbbu sama na ma lépp yow man mii njëkkër ne la la kon lii mu la la andi waaye di ñaan ci barke bis bii ci sa barke maam yi seen li ngay jeex ci kër càmmiñam yàlla ngi teg loxo. xam nga nit ku baax ci bëgg lan mooy tax mu neex xàmmee. day neex a laajte. Ah, te bi ñuy ñëw ñii di ay magam yéen a ji mu am rek ne moom am ñoom am ñoom am nañu ci yow ndax ñoo yéen a la waaye nga yëgle amo moo jur Abdourazaq sa ma dun borom kasaas atta borom bele sama la ni woon da daan joxe dépense da daan faj di faj soxla sëy boo soo dana lee gan ñi war na amana ne sa maam la daan def sa maama sotti woon pot yalwaan yi bu xëyee képp ku yalwaan elena yi yaay waaye waasur sekk mi ci mbaawa yi maam ana mbokkum sëriñ Mansoor borom daara ji mbokkum sëriñ Tuuba sëy boo sëy boo yaayi lalli laloo asatal bekkaay asatal na bu gaw loolu tam toorado na bu sëriñ Fallu gaw loolu jagoor sëriñ Fallu amar faale sabam sëriñ Seex maam yi ji Fuuta Tooro sa maam mbir si sa toile ñëw ko joor kandaare Cerno Suleymaan Mbaay ci sa daaray maam la jaare almaami Abdul Xaadir kan ci sa daaray maam sëñ bi xaale Amar Fall la jaare muriiroo sa baay xalifa lañ koy wooy di ci saalab boo axbarooy sa baay imaam maam ami tajal sa baay yaayam Abdurasaq njegeen sa baay ami tajal yaayam Aminta Dia ma jaat sa taal ma jaat sa taal ak sa taal Penda Ndongo Faal amaat Penda Ndongo sëriñ bir Demba di sëriñ bir Xaali Amar Faal na bu yaay mbokkum réew mi sëriñ bir Xaali Amar Faal sa maam jéegi baay yaayam galaajo jéegi baay samba jiraa jéegi jéegi baay yaayam mbokkum dal yaayam koo may di buutaat na meeri ci réew mi xaati soxna maam xarit Cheikh Moutalla Sey bi demoon gànnaar faat tuut faat tàkk ko Cheikh ma mujj gis sëñ Bamba borom bàyyi gi ni caat la baayam tudd sëñ Bamba moo dem Italie tuddloo italien dem ba Amérique tuddloo américain ya kooko mutta Cheikh Moutalla sëñ Bamba la baayam tudd Mamoor Anta Sali bala si buri sëriñ maaram waaye nag faat tuut faat tàkk ko Cheikh ma mujj gis sëñ Bamba mbokk ndeyam soxna Musli ak soxna Ami Cheikh càmmañul nag soxna Jóob Mbàkke kooku mooy soxna maam xari mu talaa ñu ñëw nag ah sama rakki pataro sama magi pataro ñëw nag yónni ma nag ñëw nag soxna Ndeye Fallou borom ñaari daarum si. tubaarkàlla fal naa la ko. maam xari bu réew mi kon tubaarkàlla macha allah su yónnee.

te nee na lépp lu mës a nekk yow dugal nga ci sa loxo lépp lu mës a nekk tamit su gestoo gis na la si ginnaawam wax na ma ko bi may ñëw ci yoon wi woone ma ñetti yoon di ma laaj fan laa toll mu ne ko dama génn Tiwaawan dama jaar Tiwaawan embouteillage bi xaw a bëri man ma na nga gaaw ndax dama bëgg balaa guddi nga àgg ne ma soxna Sey Ndebou day kenn ci man ndax màggal Tuubaa bi passé teraanga ju bari la ma yónnee moo ma ko wax ci làmmiñam mu ne mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla na nga ko yàgg màggal bis bii mu yàgg fee yónnee yàgg fee ñëw di la fi fekk mu wax na tamit sa taxawaay sa jikko moo tax mu jàpp la sa personnalité ak sa dignité ak sa taxawaay sa digganteeg umma islamique bi te loolu man mat naa ci seede ndax yàlla dogal na man ak yow ñoo daje woon màkka man ak yow ak Fada Dieng ak Cheikh Dieng ñoo daja màkka ma xool ci yow booba miinaguma la mais ma xool ci yow jullit te bi ñu ñëwee fii tey li waral li tax ma mën a seede loolu ndax wa maa sayid naa illaa bi ma alim naa euh, bi ma ñëwee fekk naa fi tarixe yëpp ñëpp a ngi fi te alxuraan daf ñoo waxoon ne innamal mu'minuuna ixwa faxsinoo bayna axwaykum jullit ñi ay mbokk lañ loolu nag yaa ngi koy dundal ndax yow kenn mënul laa teg ne la fii nga bokk wala fee nga bokk yow ñëpp nga amal kóllëre ñëpp nga amal jàmm loolu nag euh, seede la boo xam ne man yàlla rek moo tax may wax ndax man goneek Tuuba laa ci diine lañ ma yar kon su may wax damay wax loo xam ne dama koy teg ci li ma xam xam naa la lu jiitu maam Xadim Mbàkke di ma yónni si yow ñoo daja Màkka te bërëb boobu mooy bërëb bi gën a sell ci islaam fa lañ xamante kon nag maa ngi lay ñaanal si turu soxna maam Xari Mbàkke yàlla nañ fi yàgg ñëw fekk la fi yàlla nga yàgg dundal bis bi di nuyu tamit sama sëriñ bi soxna Ndey Mbàkke mi doog a agsi wax dëgg yàlla ak ni ngeen jàppalee soxna si ndax nit bu baaxee li koy valoriser mooy ñu koy wax ndax am na nit ñoo xam ne dañoo waroon a baax ba noppi jaar ci beneen yoon te baaxuñu mais kon ñuy wax baaxu nit ñi tamit daf ciy baax ndax suñ borom dafa waxoon ne dafa waxoon yonent bi ne ko na nga sant xéewal yi ma la defal loolu day wane ne nit ki bu defee dara dañ ko war a wax ndax dina tax nit ñi ko deful di ko def dina tax moom mi koy def tamit mu gën a góorlu fi may jeexale rek li tax nettali njàmbaar ak wax lu baax baax sëñ Touba 1921 bi ko gouverneur général wooloo dafa ñëw ànd ak maam Cheikh Anta ak sëñ Moudou Moustapha ñuy wuy si bi ñuy ñëw wuy si am na génn góoru géwél gu fa nekkoon dama fàtte turi mooy ma ma tabara mbaay dafa daw gis sañ Tuubaa rek gis ko daan ne ko yow de li nga waxoon génnoo ci lu la dal rek sa ñaari rakka yi moo la ko teg ki ngay wuy si na xaw ma la ma waxoon génn na ci wala déet waaye yow loo waxoon génnoo ci mu gestu maam si xante ko nañ ko may xaalis kon xam na ne kon xam na ne wax lu baax sëñ Tuubaa sax dafa bëgg koy fàttali ak njàmbaaram kon de leen fàttali nit ñi seenu njàmbaar li ngeen nekk lu wér la maa ngi leen di sant di leen gërëm soxna si nag waaw soxna si nag moo ma jox enveloppe cinq cent mille bii mën ne naa koo indi jox la ko ci bis bi ndax nee na loolu ngeen seq te nee na yaa ko li nga li nga ko defal ci teraanga defal loolu ñu toll nee na mi ngi lay sant di la gërëm jërëjëf. ko ah, moo nekk ci bopp dégg nga. moom moom moom moom moom père moom moom moom mooy dëkk. maman maman dafa benn benn benn jigéen laa la ko wax. soxna Diop la yaa tudd. mbokkam am mu bàyyee leen loolu laa xam ci jikkoom kon yéen ñaar seen seen ànd gi c'est très normal ndax ku bëgg fu mu faral ak ku bëgg ku bëgg dañu ko dugub dafa boole da ngeen a bokk ay jikko bokk fu ngeen jógee bokk ñu moo tax ànd bi yàlla sax yàlla ci yàlla musal yàlla ci yàlla musal yàlla na yàlla nañ fi teewee dégg nga loolu dégg nga ministre nag baax naa sukar neex naa leen. laaw la kooku ñu doon bëgg moo ko indi. daaw da doon bëgg a ñëw ñu ñëw ba coon mu xat. xam nga li diggante Tiwaawan. ba fii xat na. ñu war a jógewaat fii réer di ba te kooka bu lalee danaan bu ma laal réer de sans fi mu ne nii ña ngay lor ne fa moom lay xaar rek keroog ñu tubaarkàlla lépp lay defar nii nga def waaye bala mu kenn laal nday seen jóg ñoom. te loolu nday sànn yéene la ak mbëggeel ñëw na fonk na fonk bëgg na ci bëgg nga ko. dëgg la ngeen bokk parti bi bokk président bi. te dara aayu dara ñaaw ngeen bëgg ko lool nag. bu ñëwee kees nañ teg ko ca kaw boo ko gisee Ndakaar teg ko ca kaw boote na nga ko kon nag yow njëgeen seet ku la gën a fort moom. nuy jiwul kenn ku la gën a fort moom te gis nga kenn ëpp léwu la ci. Ah waaw la ca ku ñëw fii kees fii ndogoo si bi. nga lalal ñu ak ay décembre nga lalal ñu. Ah, ñu jógee fa jaar bi ñu bu ndey mbàkk bi ñu bu ñu dem fa ñoom ñëpp ñu taral. Ah. te lépp nag sa barke lañ la koy gërëm. ndey sëkk mm-hmm. ñu bari dañ leen di fal ministre wala ñu leen di jox ndamba taf ñu ne wuti maa wuti ñu leen koy wax. moom saa wut ñu ñu xam ci moom moom la ñu leen yàlla na ànd bi yàgg. yàlla defal leen cap. bàyyi leen président Macky Sall. tabaarkalla macha ñëpp am jàmm la. loolu daal lañu amoon lu muy wax. Euh, euh, ministre kontaan na. waaw ziar baax na baax na kay Diop xoolal ni wala taxawee waaw Diop xoolal jékkil maire yi nga ñëw taxaw da liggéey ah, il travaille quand xam nga yàlla moo dogal moom lu ko a ñun ñu ànd nekk ay jigéen nekk ay jàmbaar sonn ci loolu nag kenn ku ci nekk yéen sa moom jàmm kon lu waaye nekk sa moom commencé fekk sama sœur nga ñu ñu tudd rek ma kon soo amee sa bopp dañuy dama ci woo dama ci wàññi teew waaye jour gàmmu moo xat benn façon xat boo xam ne dañoo toog reer depuis cinq heures laa mën tey laaj de xam ko am sax teewul na xam nga dem Thiès. ok mën naa jox seen bu jigéen sax mu xool. te de moom ko tey mënu mënu ko mën. mais xam nga rek bu nekk 5 heures 6 heures ba timis bu soo génn tool bi kenn amul foo jaar. waaye jaral nga moom am na chef nag xam nga lu ma def moom. parce que moment bii dañu ko il faut que 2 heures temps et puis ma doon 1 heure de waaw ma jaral nga ma ko yéen mën naa yéen pour yow mën naa faram pour yow parce que nii nga mel laa la xamee. ñun sama gis yow la mel ne ma man dama ko def. dem na waaye xol moom dafay gisee. da nekk bu baax. jàppal président di ko jàppale. waaw nee ko yàq ngay sama mbokk kon ci sa war naa ko ñëw su amiin amiin fu ñu koy dem mm-hmm. ko fa. xam nga sa kër may waaye baax dina mi nag xam daal sama sër la. lépp loo xam yaa ngi ci ne maa ngi ci biir mënatu ma ne maa ngi ci. dégg nga nii dégg nga nii bokk nañ bokk waaye jàpp nañu nag parce que au delà de la am leneen loo xam ne moo ñu mooy yee loo xam du ma sa jeex ci àddina. Mm-hmm. loo xam day rafet rek ba faaw mooy moom la ñu boole. ak Sénégal bi ñu boole. loolu jàppal daal moom parce que lépp loo nekk rek maa ngi ci biir soo mu gisee ak ñu wax lu sew. te mu wax sew waaw nee naa waaw ci si kenn nag loolu la particulier la. maa la gis ma ko. dégg naa la taxawaay si président. maa de. waaw waaw.